Assalamualaikum sama gai wa syah bin de wa fungen tole ci aduna rek ma di ziar yen ya ñep di len jox sen waccu way am eh, di ñewat rek ci live bi nga xamni si bu gaaw la wa parce que pour leral la dama jot tay ay téléphone yu bare ño xamni semaine bi deggu ñu mo fenn waxuma dara wa pour xamal len ne def nañ vidéo bo xamne vendredi lañ ko def waaye pour des problèmes techniques uh, parce que xam ngeen samay vidéo ni eh, lah, ma ah, koy def ay vidéo documentaire lay def man lépp lu may wax rek du ma sosal nit damay teg preuve waaw te boo bëggee preuve nag da ngay jël élément ba ka ko def ka ko wax nga ñëw teg ko fii doomu aadama yi mën a gis mën a atale seen bopp ñu xam ne xaarim moom sosalul kenn fenalul kenn voilà vidéo boobu ngeen war a gis incha allah mën na am ngeen gis ko tey ci ngoon wala suba au maximum incha allah ndax euh, studio bi ci Dakar dañ am problème de connexion internet voilà te vidéo yi comme nu ñu koy liggéey c'est très difficile man dama nekk Italie Ah, studio ba nekk dakaar donc dama am lu may enregistré fii comme ni may def ak yéen après yónnee leen ko yónnee leen éléments yi wax leen nañ koy monté ñoom ñu monté ko loolu di de passage di nuyu sama boy sama rak euh, Ousmane Ndiaye moom mi nga xam moo ko yor bi ma woo dem ne ma grand affaire bi dañu am problème doon peinture kër gi fii lii am ay dérangement wonañ gaay pour internet bi affaire yoyu ñukoy def donc euh, vidéo bi depuis vendredi man defon na ci lima ci def élément yi yor nako montage bi rek mo ci deson après mu meuna del soit télécharger ci chaîne bi ngeen ko gis lolu tax ci digënté bi euh, appel yi bari trop message yi bari trop man nak il faut ma genn rapidement pour dalal seen xel xamal leen ne xaalim mom fu mu nekkon ma nga ko batay voilà donc euh, bu ngeen xaaree comme ni ma leen ko waxee sànq rek euh, fekk ngoon euh, wala maximum suba incha allah di ngeen gis vidéo bi nga xam ne vendredi laa ko réalisé woon am yoo xam ne si wax nañ ko ci ay leeral yoo xam ne teg nañ ko ci day nag pour mu bañ a gàtt trop trop trop il faut ma tegal leen ci euh, benn affaire wala war a anticiper leen li nga xam moom ngeen war a gis vidéo bee di ngeen ci gis incha allah ca commencement ba da gis Sonko pour wax leen ne nit ki. ni ma ko yàgg waxee booy digle càngaay dafa war a fekk ngay sangu voilà di accuser Macky Sall la que ne dafa jël frère am teg ko ci gouvernement bi comme ni Abdoulaye Wade jële woon doomam jox ko jox ko benn ministère ay ministère la ko joxoon sénégal yépp accepté loolu donc euh, Macky Sall bu jëlee benn décret nommé frère jox ko benn rôle te tey ji yàlla def na bi coow li bare Aline Sall jël ndomb googu tekki ko teg ko fële ñi ju bare ñoo ko doon wut waaye gannaaw am na xam nga li may wax ci Sénégal mooy seen nafiq bu ñu la bëggee accuser moment ah, dañuy bëgg lii boo defee lool ñu génn la safaan ba quoi voilà ña doon wax yëpp na démissionné na démissionné na démissionné démissionné na tey kontaanuñ ca léegi xam nga lu ñu leen di wax na démissionné maire Guédiawaye te Guédiawaye ñu fay ñu fal ko mu def campagne ñu teg ko fa légalma waaye ay noonam ku mel na ay Ahmed Aïdara dinaa leen ko expliquer ci vidéo bële ngeen war a gis incha allah gis ngeen ko koo xam ne géejawaay la dëkk bëgg na toog ca mairie boobu moom en tant que journaliste waroon a neutre ci affaire boobu moom mooy ñëw taxaw di solliciter euh, que euh, Aline Sall na démissionné ci maire ba pour mu gën a yomb xam nga li italien yi naan vincere facile mooy gagner facilement waaw sama non bi daal xam naa mënaluma ko dara aw fu ma koy jaar ndax liggéey na won na waa géeja waay defal na waa géeja waay aw ma fenn fu ma ko mën a jaar bu ne ci campagne la damay perte man ah naa profité ci affaire bi jaxase ko ak nit ñi pour mu démissionné foofu mbir yoon mu gën a yomb ci moom amet ay dara da ngay liggéey boo bëggee toog ca foofa te do fa def lo xamne ki def ko fu won waaw ki meru geyo way la dañ ko fal wa geyo way ñoko wolu tek ko fa ça n'a rien à faire avec lu ngeen koy jinn ci ay pétrole bi lo xamne si wax na ko fele dina gën lert vidéo be hein ah. que ne am yon top ko ci dara amul ben plainte buñ ko ci porter amul fenn fu ngeen koy teg naan dañ koy tëj seen ay kàcc yoo xam ne ay noonam lañ taxaw rek jiñ nit ki lii dafa yomb trop pour ne nañ ko tëj ca kaso ba wala bu mu dem France bu mu dem fii Aliou Sall dégg naa ñu naan dem na France lan moo tax muy dem waruñu ko woon bàyyi muy dem mais pourquoi pas yow koo xam ne justice tëju la amul benn euh, affaire boo xam ne si yoon téye nañ la lan moo tee nga mën a dem France ak dem Amérique dellusiwaat Sénégal Aliou Sall bu demee France il o retourner au Sénégal demain ou après demain am na ay business am ñuy dox yoon tëju ko yoon téyewu ko yéen ci réseaux sociaux yéen a koy décider yéen dañ ko war a téye warul génn Sénégal warul dem fee hmm? surtout un journaliste taxaw ne ma dafa bëgg a nekk maire ba moom mooy ñëw naan leen demi dafa war a démissionner ci maire bi pour mu gën a yomb waa géejawaay du ngeen ay dof Alioune Sall li leen defal gis ngeen ko xam ngeen ko barki dem nga njaay laf fa indi chinois yooyu mu nekkaloon a ah, lam leen defal ca géejawaay xam ngeen ko maire boobu la mu leen liggéeyee ca géej waaye xam ngeen ko bu ñu leen saytaane ak doomu aadama yi élection yi bu ñëwee incha allah dana fekk mbir mi dana gën a leer ba baadoolo yu mel nii bu ñu bëggee toog ca place boobu mu toog ca fauteuil boobu daañ ko ñàkk suyee ko doog koy am mi ngi mel ne Sonko mi taxaw naa leen ay Macky Sall dégage dafa war a génn dugg fii réseaux sociaux yi jaxase gi bari tey dégg naa lu nice ci Macky Trapo mu wax ko et eh, dama ci kontaan ci tey ci dimanche ji lu tax ma bëgg moy damna na ba ne mu doon jappalé ci réseaux sociaux yi ah, programme ils ko tégal waxul wa ku xam nga ku waxal Sonko lay wax man vidéo bi vendredi la ko vendredi passé tay jii ci dimanche bi la ko wax ah, genre chronique bo xam def minutes ah, mais wax logique ne li nga si mom la Sonko mom man voilà moom lay joxoñ Macky Sall doon ko joxoñ Abdoulaye Wade moom la def tey Casamance gële dafa taxaw jël sëram teg ko moo géré Pastef ak ay cousin ak ay nijaayam ak ay bàjjanam teg leen fa kooku bis bu ñu ko tegee ci réew ma lan lay def ñooñu lay jël def leen ay jox leen ministère yi te pourtant loolu lañ ñëwee ñëw triyande leen di leen gëmloo di leen manipuler que le Macky Sall jël na benn rakkam décret boobu teg ko fa waaw mbirum petrol ba alin sal bu mu dugg gën leen ko xam bu leen na fekk xam ngeen ne alin sal ma abdoulaye wad ak doomam ñoom ñoo ko tegoon foofu ñoo ak frank timis du macky sall moo ko présenté na leer waaye tey ñu ngi leen bëgg wax ne macky sall moo jël pétrole ba jox ko rakam ah nangam nangam abdoulaye wad bu ngeen ko fa dégg de ak doomam déedéet te booba c' en 2009 2010 macky sal 2012 la jël euh, pouvoir bi voilà te fekkoon na Alioune Sall mu ngi woon occupé déjà am rôle boobu Franck Timis xamoon na ko la ko Franck Timis di fay pour mu gérer ko société Sénégal xamoon nañ ko te du mati Sall son frère moo ko jox voilà kooku na leer waaw li ma kontaan ci laay bu mati tey mooy Maty trois pommes mooy loolu reconnaître na na am na lu ko naqar yi loolu yow lay naqari yi waaye ñu naqari mu manipulation yi Sonko ah yéen a ko xamagul loolu lu tuuti la ci Sonko da ngeen xam kan mooy Sonko. vidéo bi ma leen di jox li tax ma leen man su samay vidéo dama koy documenté dangeen xool ca commencement vidéo bu ñëwee jël leen seen patience ngeen toog ngeen seetaan ko lu ko bu baax dangeen ngeen déglu koo xam ne. ci membre am yëpp important ca Casamance la lan moo tax mu démissionné ci Pastef dañ leen ko expliqué ndax Sonko li muy accusé ñeneen ñi mooy la muy def te toggawul ca gouvernement ba waaw ñëw di leen marché loo dafa yomb expliqué naa leen fële ca vidéo boobu ngeen war a gis incha allah ah que moom ak ay Barthélémy jàpp la foo type laa nga xam ne maire ba mu yor tax Macky da ko fa tër comme tali am fenn fu mu jàpp lu occasion yu mel ni ci lay ñëw te bis bu ñuy ñëw seen marché yi ay garde la ñuy àndal leen di séq wër leen protéger leen ba dugg seen kat kat bu rafet boobu ñu delluwaat sa doom yow mii wala yow mi fa nekkoon yaa fay dee bu ñuy dem ci hôpital ba comme ni man ko waxee yéen na fay dem du sonko du parti mi jaar du seen benn fabi voilà te loolu muy accusé Macky Sall ma ngi koy def ci parti ba ma ngay tas kon nag bu yàgg yàgg yàgg nee nañ la maam dafa wax ne bawul dara waaw naa feq hmm, buy wax hmm, dana brûler boppam du xam lu tax waaw fële wax naa naan fa Idji Idrissa Seck dégg nañ ko ci conneries yi mu ñëw di wax de opposition bi li ngay dégg Sonko la Sonko lu muy wax livre bi doon naa ko waxoon naa ko dugg na fii génn waaw ñan ñoo ko côtoyé ay vorien yu mel na ay Karim Xurum Xaaj waaw dégg ngeen ko ah, mu ngi ñëw di attaqué daan BBC nangam nangam du TFM ñoom ñooy ñëw di leen jàngale ne tubaab yi dañ leen war a daw tubaab yi ñooy ñëw di ñu exploiter tubaab yi ñoo ñu coloniser ba tey waaye ñoom ñi leen koy ñëw di leen ko wax mooy ñuy digle cangaay ñu sangu mooy loolu di wax ne tubaab bi moo lay waaye tey jii lu ñu metti tubaab ba moo ñu koy fajal à l'extérieur muy BBC wala muy TV5 wala muy CNN wala site euh, télévision yooyu nga xam ne yu nasaraan yàlla

Bouba nduur bi bokk ak Youssou Ndour ndey ak baay sax àndul ak Macky Sall Charles yéen nga koy gis àndul ak Macky Sall booy Pape Cheikh euh, non booy Pape Djibril Fall bii Pape Cheikh maa ngi lay jégalu <laughs> non Pape Djibril Fall lay wax nga xam ne ni ko italien di wax il est euh, eh, ne la cresta dell'onda noonu la ko italien yi waxee mooy ki nga xam ne si actuellement moo xew moo am buzz moo yor buzz site yëpp ñoo ngi koy xëccoo amul benn site boo xam ne du woo Pape Djibril Fall wax ko xalaatam bu fa jaaree fu mu waxee rek deux cent mille trois cent mille visualisation muy loo xam ne honneur la ci moom honneur boobu nag booy am na conseil bu ma ko jox du ma leen ko anticiper dama bëgg ngeen déglu ko ci vidéo bee ndax dafa am foo xam dafa toppe teg ko fa koo xam nag ñi ci opposition bi ay ñi ci pouvoir dafa am espérance bu am ci yow am yaakaar am gëm ñu la gëma ah, bul monter sa bopp bi ndax jay lay jay tey ba nga yaakaar ne Sénégal yow yaa fay journaliste déedéet li tax ñu topp la gëm la ngay xale bu ndaw ñun ñëpp ñu mag la sa moroom mi baay ak sa moroom mi nday rek ñoo lay déglu nama ko waxe video vidéo bi du ko anticiper dama bëgg ngeen déglu ko directement conseil bama ko jox voilà tay ji intervenir na ci programme mati dua pom waaw Muahlah ne sit buta taxaw rek ma ngay yaakaar ca moom ñëpp ñi ngi honoré wu pour inviter ko seen programme pour mu wax te muy xale bu ndaw ndaysaan kooku yàlla moo koy jël moo koy def di ko ci ñaanal yàlla yëkkati ko ci loolu di ko wax tamit loolu mu wax ca mat yi la marché sàndaga boobu na ko sàmm bu baax a baax waaw ndax kat ca vidéo bee naa leen ci woon loo xam ne def na safaan ba wax na safaan ba te bu continuer ci yoon woowu ah daañ ko xëy teg ko ci suuf ni yàq ko naqari Sénégal hmm, folli lañ gën a mën ko fal Pape Djibril Sénégal folli lañ gën mën ko fal kooku nag wax la boo xam le temps dina ma jox raison wala dina la jox raison yow amna luma la wax ci vidéo bé duma ko répéter fi dama bëgg ñen ñëpp ngeen déglu ko yow momat nga déglu ko conseil bama la jox tégal la nak ndax bu ngeen gisé vidéo bé mu ñëw def live tay ah, dafa am passage bo xamné 30 matul sax 10 secondes la yu mu wax yu info rew mu invité won ko mais bu mako waxé ci live bu nañ né man dama ko bañ wala dama ko li dama ko la waxna len fele ne man fansam la ko ko naw la xalaatam idem intelligence am dem naa ba ne ko nday ju ne sénégal bu suñu dañu jur doom ju mel na yow da ngeen ko dégg lee man du ma iñaanuma da ngeen dégg ñu iñaan ña may wax ca vidéo bee bu ngeen war a gis danaa leen ko wax te démontre lan moo tax ma ne ñoom iñaan voilà da ngeen ko gis loolu yëpp surprise la pour rek tegal leen ki ante prima la ko italien wax si xaw ma ñu koy waxee te ci nasaraan ah pour jiital leen rek lu avance leen mosal leen ci vidéo ba ngeen war a am quoi boo xam ne vendredi laa ko defoon anticiper lii nga xam ne si dama ko dégg tey muy dimanche voilà Pape Djibril wax nga fa tour ce que tu dem na ba ndaw si laaj na ne yow président woo na la sax nangam nangam nga sote ci tournée affaire boobu waa donc yow boo demee président am estime ci yow booy. ah ça veut dire ne comme ni ma ko waxee ci vidéo bee loolu du ma leen ko nëbbu dañu bëgg nga nekk journaliste boo xam ne ëllëg bis fu mu waxee ah? fu mu waxee ak télé bu mu waxee site bu mu waxee ah daañ ko jàppe comme BBC waaye nag loolu góor ga wax ca marché Sandaga ko boo ko toppul hmm? bàyyi loolu ñëw naan dangay ngay ànd ak Sonko da ngay ànd ak yii ba lu Macky Sall def nga xëpp ca suuf ah fépp fu ñu laale Macky Sall nga ñëw dal ci kawam kooku nekk too toppatoo la la góor gu waxoon utiliser sa moyen xale nga da nga dégg lu ne daañ la proposer lu ne ci àdduna ku ne dana la woo ci ca opposition ba ak ñi ca pouvoir ba ak lépp booy dañ am espérance yow journaliste yi ngay dégg ay Baba Aïdara tous ces gars ay Pape ale Niang ñoo xam dañ leen a jël teg leen fële ñoom la ñuy yaakaar mooy ëllëg yàlla na ci BBC wax yàlla na ci CNN wax yàlla ci TV5 wax ndax ñu mën maa déglu xam nga ne ñooña duñ journaliste yu compté waaw xurum xàcc neen leen fi ma ngay dénigrer journaliste yi nekk TFM naa la BBC duñ TFM mel na journaliste yi nekk TFM duñ ay journaliste xaw ma lu TFM di xaar pour répondre ces vauriens là un gars qui ne compte rien ko xamne taxaw ci ay jigen yu muy triande fi lay taxawal hein ah, ñu ñak fay rek ko mom diko taxawal ci registre ci nan ngeen ko yonne ay xaliss xale bu tuti di dogul nangul dem di liggey di xey di gont xana lu mu triande ni ci lay wut fi ñu dekk ko ay microphone mu yak ay dar du matin au soir bu de lol lañ bëggal sénégal hein ah, suma gaay ndax yow moomu nekk TFM TFM di la fay sax xam nga ne àndoo ak Macky Sall kon nag war nga tontu ku mel ne xurum xàcc bi xamal ko ne eh booy wax na nga xam looy wax waaw El Hadj Assane Gueye na ko koo xam ne lam doon du ko donte du ko musa doon ñooñu dañuy liggéey waaw télé bi ngay liggéey muy TFM wax naa ne ko fay Youssou Ndour lay fay di fay Bouba Ndour moom leen gere di rakkam mu mbokkal ndaj bàyyi kooku ñoom mën nañ ko gere parce que yous il est démocratique nanguna ño bok nday bay sax mais am nga droit fété fi man ma fété fé fu malade da ko jël diko fay fu malade ma nga né di and ak sonko ñuy contre Macky Sall du matin au soir té yous ndour da koy fay waaw ak yenen ñek ñenen ak ñenen ñu nek ci ay plateau di wax mu len di fay wër wu dé kon nak di ngeen jël sen cadre yi au lieu ngeen nek di wax ñak fay la ngeen tontu des vaut rien comme ay fu ay xurum xàcc yi seen tontu sax jaru ko parce que mérité ko sax parce que du seen niveau tolluwu leen ci dara waaw activiste bu tekkiwul dara la boo xam ne li muy wax maîtriser wu ci tous voilà bërki dem bu taxaw fii di xeexal booy boobu nga xam moo jëloon tànkam tekk ci alxuraan ja ah dégg ngeen ci alxuraan ji tes même alxuraan ji dégg ngeen la mu ca wax ci Aliou Sall donc booy défendre yow kee jël tànkam teg ko ci alxuraan mu naqari la ba ngeen dañ ko war a rendi ah Aliou bu ñëwee taxaw ah, wàcc alxuraan looy xurum xàcc ak lu mu mën a doon loo ko bañ bañ jox ko crédit voilà man loolu laa gëm man waaye jóg leen ci ñii sinon journaliste yi du ngeen dara booy Pape Djibril Fall bul taxaw ñu lay teg. di la classifier ci journaliste yee ndax niñ lay wooye ci sit yi fu nañu invité la foo taxaw ñu honoré wu booy bul brûler sa bopp bul lakk xale bu ndaw nga demu ko fenn waaye gis nga Sénégal niñ la mën a fale dañ la mën a follee ci lu ndaw buñ xamee ne am na foo féete actuellement nee naa la opposition ak ak ak pouvoir ñëpp dañ am yaakaar ci yow ñëpp gëm la jox la crédit waaw bësuma dégg kenn ku lay clash xëy na man maa ci jiitu de te la ma lay clash ngëneel la ci yow bul topp ñii sonk mi ngay topp xoolal sama vidéo bee nam commencé mu wax la li muy accusé ñee moo ca jiitu toggul ca pu war mu koy def waxuñu nag ëllëg bu fi ko toggee loolu naqari mati trois pour moomu ñemewul ne sonko waaye sonko la bëgg wax waaw activistes yi nekk france ñii nga féete fee ñii nga féete fii ñii nga féete ñoom ñëpp dañ ne dañ ils sont contre le pouvoir c'est pourquoi donc ils n'ont pas les idées claires mi ngi donc ce gars hein, dafa waroon rek ma ñëw pour wax leen de xaadim mi ngi déglu mi ngi dégg mi ngi wax problème technique boobu kese lañ amoon moo tax ma ñëw def affaire bu gàtt bi ah ñëw tagal leen ko na ngeen xool vidéo bee incha allah dinaa ci woon ah, comme ni ma leen koy waxee document lu may wax kii militant Sonko boo xam ne si responsable politique bu Pastef la moom moo ko wax fee ci Casamance di leen ko expliquer ngeen dégg moom laay départ ci vidéo bi doo ko ñëw. Pape Djibril am na foo xam ne àgg nañ fa dinaa leen woon lu mu wax dinaa ko woon fa mu toppee bu dee nangu na dégg nangu rappelé wu la ko góor ga waxoon ca marché Sandaga ah, dina xam ne fii jiw na fa te loolu njuumte googu da ko war a dindi booy je n'ai rien contre wax dama lay conseil rek ndax da nga nekk ñoo xam ne man ñee dama leen weddi woon comme leen Sénégalais yi weddee ba tax tey jii ñuy yaakaar ah, BBC ak CNN ak TV5 ak RFI. buñ demee ba mën a am Sénégal journaliste boo xam bu dee yow benn ëllëg keneen dana judd ñaar ñett ñeent ah ñu soxla BBC dootuñu soxla euh, chaîne yooyu pour di mën a gëm wala mu ñuy gëm loo Sénégalais yi li nga xam ne mooy dëgg ndax am nañ ñoo xam ne bu ñu waxee ah seen kàddu day am Sénégal yëpp dañ koy gëm ñooñu nag ñoo ko war a liggéey ñoo ko war a démontrer paana ñu féete ci benn côté waaw. boo bëggee nekk journaliste di xeex comme Pape Alé Niang na muy xeexee Macky Sall nga di ko xeexee Macky Sall ñëw di ñu yëkkate Sonko fii yaag Sonko la ñuy boole dugal ci pax mi kooku na leer my booy ok jeex na waaw man j'espère un jour mën a déggante ak yow waxtaan ak yow parce que sa compétence wax naa ko fële sa intelligence wax naa ko fee hmm? te waxuma ko iñaan dama wax li nga xam moom laa gis li tax buñ la sit buñ la mës a invité muy bu ma bëgg ak bu ma bëggul danaa toog déglu la ndax sa compétence ndax sa pertinance waaye nag xel leen du doy nee ku la mag ëpp lay sagar waaw ñun duñ ay journaliste la waaye yàgg nañ ci milieu bi di ci dox gën ci xam lu bare ay journaliste yoo xam ne si ña ngaa carte seen poche doxaluñ ko nañ ko war a doxale di doxal ni nga xam ne si ah déontologie boobu lañ la ca wax respecté ko bul faale ay sonkoog ay politicien bu mu mën a doon nekkal li nga doon représenté li nga doon barki sëñ Bamba ëllëg daañ la dégg fu sore waaw te kenn du la mës a mën a wet lii nag conseil la la ma wax fee nag suma gaay bu len gisul tay ci ngone plus tard après vidéo bi hein ha. uh, uh, di ngeen gis fek suma inshallah di len nuyu di len sargal di len respecter yeen ñep di am len luma wax di len remercier di len jox rendez-vous rek ci vidéo di len wax ngeen bind ci chaîne bi waaw ku ci bindul won rek nga dem nga bëss bouton bu xonku bobu rek xamne fi mom deug bi lañ fi wax voilà ñu ñeñ andal dañ am conviction and ak ñom voilà ku len di contre bo len contré ci deug ñu and ci ak yow boko deful ñun ñu bayyi comme lima tay ex premier ministre bobu Abdul ah, abdoul mbaye sepa je sais mati lampu fa ayuh yep ay waxam la waye lag bañ ko waron laaj laaj ñuko lutax 2012 gannaaw yow ni nga wedde Macky Sall ni nga yaqé daram ci aduna ni nga yaqé daram ci gouvernement ma lan mo taxone nga dem nek premier ministre ta delu wat dem mati bu ko woyé ti monsieur le premier ministre parce que ex premier ministre won dotun premier ministre te bu du woon Macky Sall ni muy xas tey di ko dénigrer du woon mës a nekk ministre bay nekk premier ministre kon nag gars yi rendez-vous bi moo ngi ci vidéo bee war a ñëw incha allah rabbi xaalis moo ngi fi fàttewu leen respecté leen yëg leen teg leen fan fii peace and love guys in the world yo